recevoir suñu invité yi tey nag euh, ñu am mbégte lool euh, dalal koo xamee ni suñu sang la suñu soppee la suñu xarit la itam kenn la ci euh, télévision Futur Média ndax yàgg na ci ay événement yu ni mel mhm. comme bi ñu mal fu mu teroo rek mhm. dañ ci wóolu taxawaayu télévision Futur Média loolu defe naa cofeel la ak mhm. kóllëre goo xamee ni am na ci diggante ëttub Cheikhul Khadim ak télévision Futur Média sëriñ maam Cheikh Khadim Awa Ba sang bi ñu ngi lay nuyu euh, di la ziar ndokkeel bég ci sa teewaay tey ci euh, télévision Futur Média li ñuy njëkk a def rek mooy bàyyi la nga nuyoog suñu xarit yi ñuy seetaan. Euh, jërëjëf Pape Cheikh Diallo maa ngi commencé may kàddu bisimilah rahmaani rahiim di sant yàlla di julli ci yonent sallallahu alayhi wa sallam di nuyu rek ci njëlbeen gi sunu xalifa généraux yi Cheikh Ahmad Mountakha xalifa général mu yàlla fi yàgg tooyat. amiin suñu Babacar Si kuréel gi nga xam ne moom la Cheikh Mahamadou Bassir Mbacké taxawal muy kuréel journée ki tala Cheikh Mahamadou Lamine Bara waaye di leen nuyu itam turu kuréel gi nga xam ne mooy AIS dama jiitu ko euh, di la nuyu di nuyu waa kër gi juumoo ni nga ko waxee dëgg la ndax kuréel gii di AIS sama jiitu ko ñu taxaw ko 2015 ñu ne waa télé bi la gannaaw yàlla bu ñu xamee AIS ci travers euh, média yi euh, TFM dugg na ci loxoom bu rëy rëy rëy di ko commencé kilifa gi muy Youssou Ndour jaar ñi nga xam ñoo yor programme bi ñëpp ba ci yéen ñëpp ak ustaas fi nekk yëpp ba tax na ñu ngi amaan mbégte euh, euh, toogaat fii ci tele bi àndaat ak yéen ci préparation journée culturelle Cheikh Mawlana Lamine Bara bi nga xam ne sa xarit sa soppe di sa sëriñ di sa lépp euh, muy sëriñ Bassirou Mbacké Xaadim Awa Ba mi nga xam ne moo taxawal moo initiateur journée culturelle Cheikh Mawlana Lamine Bara waaye di nuyu tamit sa sa sa sa kilifa sa yaay sa sëriñ sa soppe di bàjjan soxna Bali Muntaxa mi nga xam ne mooy sunu kilifa ñun ñëpp di suñu mm-hmm. bàjjan mm-hmm. waaye di eh, kilifa Cheikh Mahamadou Basir mm-hmm. di bàjjanam eh, def ko doomam préféré ko sëñ Basir tamit def ko bàjjan préféré eh, kus bërki dem bi soxna Bali ñëwee ko sëñ Bas bërki dem di ko indi teraanga yi ak teraanga gi nga xam jóge na Cheikh Mahamadou Muntaxa indi ko ba ci këram gii ci dakaar ñu nekkoon fa mu woon ñun ñëpp ñëw loolu da xam ne Euh, ku préféré doomam mooy def lu mel noonu ku bëgg doomam mooy def lu mel noonu waaw ku am féete <laughs> ku am féete mooy def lu mel noonu eh. donc yaakaar naa à travers ñëpp gis nañ ko eh. donc moom it ñu ngi koy ñaanal baax muy bàjjen soxna Bali ci taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko ci wetu xalif général de Mouride Cheikh Ahmadou Mountakha ndax ñun euh, fa lañ nekk xam nañ lépp mm-hmm. euh, xam nañ ne na Seydina sang ba sunu sang ba Seydina Khadija mm-hmm. ni mu féete woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. Euh, Seyna Aïcha féete woon ko fa mm-hmm. noonu la bàjjan soxna Bali féete Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax kilifa yu mag yëpp yu tedd ba ci yonante yi ñëpp faaw ñu am soxna yu baax yu nekk seen wet di leen mm-hmm, jàppale mm-hmm. bàjjan soxna Bali foofu la féete mu nekk nag euh, lépp sax Cheikh Mouhamadou Bachir suñ Bachir du léppam nga xam ne foo leen gis ñoom ñaar daanaka ñoo ñoo ñoo ñoo ñooy ñooy nekk kon ba tax na maa ngi koy béral nuyoo ci journée culturelle Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bi mën naa wax ne Pape seex liñ nar a xéewaloo ci journée ci ay xéewal ci ay e, ndawal lu jëm ci wàllu ceeb lu jëm ci wàllu naan boisson daanaka mën naa wax bàjjen soxna Bali moo def lépp def na lépp def fa indi ci nag kenn xamul toll ni muy def poroxaan ni muy def poroxaan def ci màggal def ko màgg màggal def ci journée culturelle effectivement effectivement bi nga xam ne mooy fondation soxna Bali soxna Bali macha allah tabarkalla <laughs> loolu yaakaar na à travers réseaux sociaux yi ñëpp gis nañ ko mm-hmm. donc kon bis bi nag euh, Pape Cheikh leen yu lay baax a baax. yow di la jaajëfal. Mhm. sa taxawaay bu rafet. Mhm. Euh, ndax it nit moom boo laabiree rek. Mhm. nit ñi sopp la. man ci laa bokk sax waaw waaw dëgg la dëgg la ci nga <laughs> bokk waaye dafa euh, am témoignage boo xam ne. sama sa digganteeg Sénégal yi ak sa digganteek Euh, sak taalibe ak sëñ Tuba faaw ñu seer lu mel noonu ndax nit sëñ Tuba daana wax nit bu lawete rek doomu aadama yi sopp bëgg te wax dëgg yàlla loolu mu nekk ci yow donc ñi lay ñaanal ndaw nga yàlla yàlla gën a dëgëral yàlla gën laa yokk ba mission bi nga xam wekk nañu ko te réew mi am ci yow yaakaar nga mattale ko allahumma amiin kon Cheikh Pape ñu ngi ñu ngi jëm kon euh, bi mm-hmm. euh, ndax mën nga ñëwaat ci historique bi lan moo waral journée culturel Cheikh Mahamadou Lamine Bara lu waral lu waral bis bi macha allah Pape hmm. xam nga Pape euh, journée culturelle bi mu ko tuddee mooy lu jëm ci wàllu euh, culture culture hmm. lu nit ñi di dunde loo hmm. xam ne dafa am jëm ci wàllu ay jikko wàllu njàngale wàllu xam-xam wàllu cosaan ak aada loolu boo ko boo ko dajale moom la jox culture culture nag daa am ñu koy incarné askan woo gis am na fa ay jëm yoo xam ne dañ faa jaaroon bañ fa jaaree am luñ fa bàyyi ci wàllu culture lu jëm ci ay jikko yu rafet lu jëm ci am njàngale lu jëm ci aada lu jëm ci cosaan Cheikh Mouhamadou Lamine Bara nag nekk kenn ci ñi nga xam ne euh, dafay bàyyi culture bu yaatu bu riche boo xam ne dafa lépp dafa jëm ci wàllu xam-xam ak mbind ci wàllu yi nga xam ne Serigne Touba waa juróom Cheikh Ahmadou Khadim Rasoul ci loolu doon bind ci la doon dund mën ñu wax ne gannaaw Serigne Touba mën nañu wax ne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moo ëpp ci ñu bind loolu nag bu fekkee ne def nañ ko ñu am borom xam bu mag bu mel ne Cheikh Amadou Bara nga xam ne fànn yëpp bàyyiwut fànn mm-hmm. ni ñuy jaamoo yàlla bind na ci mm-hmm. dénkaan yi ñu war a rafetala suñ mbokk suñ biir bind na ci mm-hmm. société ni muy dox bind na ci ba ci wàllu politique sax Cheikh Amadou Bara bindoon na ci ba ci la ku moderne la woon la woon ku la woon ba ci bindoon na ci booba jamono boo xam ne euh, nu mu tudd sax Euh, euh, kii moo fi nekkoon euh, politiciens yu mag yooyu. Ngalanu Ngalanu Diouf ñoom ak ak jamono boobu. Uh-huh. am na bindoon na ci ay wax ba mu naan la la gursu wala Ngalanu. Uh-huh. man du ma Ngalanu du ma du ma kii ci digg bi laa nekk damaa nekkal yàlla nekkal nga xam ne booba lii yàggam yàgg na am. Uh-huh. ñu bëgg kenn ku ne féete fenn kenn ku ne far fenn. waaye moom sax fekk moom dafa teel a comprendre dafa teel a comprendre àdduna. nga xam ne bindoon na ci way ay way arab yoo xam da ko boole olof yu neex. Mm. ne nekkuma fee nekkuma fee waaye man damaa féete ak yàlla subhanahu wa mm. taala mi nga xam moo ñu dénk njaboot pour ñu nekk ak moom mm. kon nga xam ne loolu bàyyiwut benn côté léegi nag xam-xam bu riche boobu maanaam euh, njariñ yu riche yooyu nga xam sax lañu bara bàyyi na ko ak yi nga xam tamit daana ko dund ak mag ñi ci wàllu social mhm. euh, buñu demee ba toll jamono boo xam ne laaj na jamono moo ko laaj jamono moo laaj ñu génne ñu démb ñi mhm. ndax léegi ñu ñu ñi dafa mel ne xamatuñ fu ñu teg seen tànk dañoo réer dañoo réer papa dañoo réer ndax Sénégal lu ci ëpp dañuy jéggaani mhm. man dama ko mhm. ko jéggaani ci naar bu dee wàllu côté bi tamit lu ci ëpp <laughs> dëgg dëgg loo xam ne téye nañ ko suñu fukki loxo te référence yaa ngi fi ah, ah. bu dee wàllu euh, côté cosaan aada tamit ci wàllu côté nasaraan bi ba léegi li ñu war a am tey xool mel ne Cheikh Anta Diop li mu bindoon bàyyi fi ak ñeneen ak ñeneen ba léegi kon ni ñu ko war a téye dëgg-dëgg téye guñ ko kon jamono bu tolloo foofu kenn ku ne réew mu ne la nga am yaa ngi koy korkoro yaa ngi koy téye réew naar lañ am ña koy korkoral seen i borom xam-xam ñu ngi leen tudde ay journée gi nga xam ne ñi ngi ko wax référence yu mat yu mag ñi ngi fi bàyyi fa loo xam ne njariñ leer nañ ñi la ci xam-xam mm-hmm. pourquoi mënuñu leen a ndax nag mu manqué jamono bi manqué société bi loolu bokk na ci élément yi poussé si xam ne sëñ Bassirou Mbacké Khadim Awa ci 2004 bi mu ne bërët nga xam ne yàgg naa moom yàgg naa yëngatu culture ndax maa ngi fàttaliku ay 98 ba muy indi sëñ sàmbay Kébémer loolu yàgg na te boobu sëñ sàmbay macha allah tabarakallah booba euh, yàgg na 98 ñi fi ñi fi juddoon ñi takk nañ kër ñi samp nañ kër ñi sëy nañ ñi def nañ lépp waaye boobu mu indi ko jële ko Louga indi ko pour mu defal conférence naka noonu même bu daan voyage Cheikh Mamadou Bassir daan nekk ci àll bi daan dem Europe daan nekk Afrique lépp conférence daan def loolu bokk na ci yi ko tax mu poussé ko mu xam ne am na mbërëm am na maam joo xam ne bind na loolu gàññi xam-xam baa ngi fi wilaaya gaa ngi fi te loolu xëy na dana ci laal tuuti mhm. ci ni mu daan faja aji soxla aji jaam yi mhm. mu ne kon jot na sëkk nag kuy wàllu yaan da nga tëggaliwut mhm. waaw Cheikh Mamadou Bara doomi Serigne Touba di nitu yàlla di wàlli di borom xam-xam di koo xam ne 46 ans rek la dund waaye bàyyi fi loo xam ne kenn mënu la ko wax Cheikh Mamadou Bassirou ne kon naa wane nag Cheikh Mamadou Bara mii ba adduna bépp xam mooy kan pas jëmm ñu xam ne mooy maamam xam mooy nangam déedéet li ko soxlaal mooy borom xam-xam borom xam bi nekk ci moom mm-hmm. ak wilaay gi nekk ci moom ak social bi nekkoon ci moom mm-hmm. ak ni mu mm-hmm. eh, maanaam maanaam li ko yàlla jagleel ci ay xar baax ak ay jàngaleem ni mu méngoog jamono léegi effectivement ak jàngaleem ni mu méngoo topp saafara ñu ñu sa am saafara ci surtout ci jafe-jafe yu bëree bëri loolu tax moo poussé Cheikh Ahmadou Serigne Bassirou Mbacké Khadim boobu mu ne kon jot na mu génne Cheikh Ahmadou Lamine Bara moom kon nag 2000 boo xool kon 2004 la njëkk Euh, def première édition mhm. loolu la may wax ne askan wu mhm. jëm ca kanam wala communauté bu jëm ca kanam mhm. faw ñu respecté seen hiérarchie maanaam nangu am kilifteef bu ñu digal bu ñu tere nga bàyyi tubaab bi bi bu ñëwee daf ni daf ñu koo jàngal fekk fii la la fekk eh, baax hiérarchie boobu. <laughs> fi la fekk baax fi la fekk baax fi la fekk baax donc. jógee suuf jëm kaw. lépp looy def rek da nga ci war a am ndigal. Eh. boo ci amee ndigal mooy tax euh, la ngay def mu mën a kii sëñ Basiir dem sëñ Sidi mm-hmm. dem sëñ Saliou mu jox ko ndigal. ba sëñ Saliou Xaareew mi nga xam mooy sunu euh, xalifa. Mm-hmm. di xalifa bi Cheikh Mamadou Basiir di léppam. ñu joxe ci ndigal booba la ko commencé woon waaye gis nga dama ko defewaat tamit ndax dëgg la sëñ Baara rek nekk fi mm-hmm. ci ci ci ci koo xam ne bàyyi na fi dara ci waa kër Sëriñ Tuubaa yi wala sax bàyyi na fi dara ci loral islam mi d'une manière générale mu ne ni muy def mooy première année bi Sëriñ la koy jagleel moom la ko jagleewoon 2004 waaye 2005 nag mu ne kon da koy yaatal yaatal gi mooy lan euh, dana jël beneen kàngam beneen mag moo xam ne ci njabootu Sëriñ Tuubaa gi la bokk doomi Sëriñ Tuubaa mu pare ko mu parrainé ko kon première édition deuxième ba Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne mook sëñ Baara ñoo bokk ndey ak baay mm-hmm. Baara amit mm-hmm. moo leen moo leen meññi mm-hmm. te mooy te mooy njëkk nekk xalifa sëñ ko tudde woon première année boobu nga xam a riche amut ndax ñaari kàngam benn li <laughs> fa ñu génne xam ne moo nekk Cheikh Mouhamadou tamit ku yéeme la woon ndax sëñ Tuubaa bi mu fi jógee Pape Cheikh boobu tubaab yaa ngi fi noonu yaa ngi fi teguñ seen i seen i ngànnaay teguñ seen dara mm-hmm. yàqkat yaa ngi fi mm-hmm. waaye Cheikh Mamadou Moussa amoon philosophie boo xam ne amoon ak dal goo xam ne lépp lu daan rek da ko daan def ci yëfi adduna la ko daan def waaye mbirum baate sax da ko tegoon ne mm-hmm. donc raay bi ngay gis mu jógee Jurbel jëm ba Touba Cheikh xam ne ay am ne lislaam moom fi la yem moom mu foofu la tolloon eh. ci yoonu Sëriñ Tuubaa eh. waaye défi yooyu yëpp mu affronté ko ci xekk ma nag ci dal ci sagesse maanaam loolu ko doon defee mm-hmm. moom la ñu wane keroog 2005 moo ko sax moo ko sëñ Lamine Bara nga xam ne karu année année bu riche la hmm. ba ca toppaat ñu wane Cheikh Amadou Fadal gis nga ko Cheikh Amadou Fadal moom kenn du ko kenn du ko waxati si biir Sénégal ci ci taxawaayam uh-huh. ci ni nga xam ne noonu la euh, politique ni mu suyee uh-huh. gis na Senghor mii ngay dégg nga xam ne nekkul woon un musulman uh-huh. chrétien la woon waaye teewul Cheikh Amadou Fadal ci xikmam hmm. xam ne am réew la ñuy waaye pas ay jàkkaak yi jumaa dëgg la am réew na bu ñu koy dénkaane xool ab imam moo gën wax xool ku ci gën am compétence hmm. ak xalaat tamit loo xam ne bu ñu joxee ak dal dana fi am euh, maanaam maanaam stabilité dana am ci réew mi moo tax ñu bàyyi ak ndax boobu tubaab yi ñu ngi man man yoo xam bu ñu ko bàyyi woon keneen loolu mën naa dayo mm-hmm. kon yooyu kàngam yooyu la Cheikh Mouhamadou euh, mm-hmm. nga réew mi bare bare bare yoo xam ñuy dund ñoom des bu année bi dee si da fekk am ko wàcc liggéey mm-hmm. euh, nga gis xale généraux yi fi jaaroon yëpp jamono boobu ku fi mas a wàcc liggéey rek bu tombeeg journée bi Cheikh Amadou Bassirou dana la de rendre hommage ah, dañ lay jukkal ci ah. ci at boobu ci at moom dañuy jukkal defal defal nañ ko Cheikh Mamadou Talla defal nañ ko kilifa diine yi defal nañ hmm. yi nekk ci biir tarixa yi hmm. Cheikh Amadou Bassirou mën naa wax journée bi hmm. boo demee ci journal yi demaat ci archive yi da leen fekk ñu rendre leen hommage ñu rendre leen hommage nga xam ne kon day boolewaat ñett dana euh, rek doyoon na bis waaye booleeg parrain bi doyoon na bis waaye nag ñi ñuy rendre hommage ñu ay nit ñoo xam ne nit diine lañu ak sax nit nit yoo xam ne nit àdduna nit aada lañu waaye dañoo jëmmal réew mi liggéey fi loo xam ne bàyyi nañ fi patrimoine boo xam ne eh, ci wàllu liggéey ci wàllu eh, industrie ak lu mu mënti doon lu rëy loo xam bàyyi nañ fi ñooñu tamit Cheikh Ahmadou Bassirou bu bis bi jotee da leen boole ci bis boobu moo tax gis nga ren euh, ñi ñu rendre hommage la macha allah fa tabarakal ndax xam nga daaw ren réew mi lim ñàkk bari na ah, ñàkk ci ay kàngam bare bare bari moo tax ren daanaka boo xoolee mm. ñi ñu rendre hommage bari na lool daanaka xëjuñu sax ci ci bi mm. dañoo jël ñenn rek mm. fu kër gu nañu jël fu kenn rek dugal leen moo tax ren ñi ñu rendre hommage gis ne ñooñu kenn ku ne rek da na journée ci ren rek Euh, koo xam ne euh, ci famille Cheikh Sidi Hadj Malick la bokk mhm. di ko ñëpp xamoon di ko di ko xam ne ku lewet la di ko xam foo ko mës a gis muuñ comme ni ngay muuñe dafa am solo yéen sax daan wax ne bokk na mhm. sa mbokk julli muuñ mhm. fi mu sax yaa ngi sarax de yëgu ko <laughs> reetaan rek sarax la waaw loolu yéen sax dañu ko jàng Pape Malick nag foo ko mas a gisee sëñ Pape Malick ndeysaan allahu akbar wallaahi reetaan gu neex ngay gis ku exceptionnel ku exceptionnel moo tax ren jii Cheikh Mamadou Bassirou jël ko boole ko ci biir ci ci ci loolu sax euh, doguma la de. Mm. waaye ouverture bi ci euh, bis bi. maanaam euh, du du yëfi tarixa. déedéet yëfi ñëpp la. yëfi ñëpp la Murit tiijaan Laayeen c'est-à-dire ëtt boo dugg rek kàngaam ya fa ne. am na nu place ci journée culturelle bi ouverture boobu noonu nga xam ne sëñ Bass def na ko pour journée culturelle bi loolu itam yéeme na de. ci maamu la ko jàng Cheikh Mouhamadou Lamine Bara. Ah. Cheikh Mouhamadou ñu Bara tey ji ay xasidaam. Ah. xay na émission bi dañoo ñëw pour waxtaan ci programme waxtaan ju mel noonu waaye euh, waxtaankat yi ku mel ne suñu gànd mesere suba dana fi ñëw incha allah dana ci leer lu bare bare bare suba dana ko dal fi TFM mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. feneen da gis sëñ baara ni mu ni àndoon ak seen maam waaw ñu jubóog moom Ah, mbokk waa waa Sidi Hadj Malick si ñi àndoon ak ñoom ndax ñoom yàlla lañ xamoon yàlla mu sàkk ñëpp yónni yonent sallallahu alayhi wasallam ñoom xamuñu xaaji tarixa ak ñoom musulman lañ xam ak jullit lañ xam même ku nekkul musulman sax ah. dañuy yiir yërëm la ndax waaw ah, effectivement sëñ mu ñëwee deful mel noonu mm-hmm. kenn du ne buleet kenn du ne nangam mm-hmm. daa comprendre maamam xam ne maamam Euh, ma ngi ko doon nag bàyyi ndax suñu baara suñ tubaab la ko doon de. te la ca maam sëtu la ca ne bépp wér jël te murid bu ñu ko mm-hmm. mm-hmm. jël moo xam xaadir la tijaan la ay murid lañ ñëpp ay mm-hmm. na yudu ne du la ko tudd nee nañ boo seetlee rek kon mm. a day day dagg jéng yooyu nga xam jéng ca aadala ak i barrière aadala ak i cosaan Pape Malick mooy sax suñu Pape mooy ndax ñu bokk mamara donc moo tax Cheikh Bassirou nag kon depuis li wax rek mm. depuis mu yaatal ci juillet juillet rôle mag a te gis nga ren mm. def na lu am solo ndax xam fan yi TikTok yi nga gis réseaux sociaux yéen ko wax léegi euh, day yàq lu bare bare bare tarixa yi léegi ngay gis ñoo xam dañ koy jël def ko course def ko làmb fowekaay ah, nii na nangam ñi na nangam te yooyu te yooyu day dem ba des mu ëpp waaye Cheikh Amadou Bassirou ci jamonoy gàmm gi mm. jamonoy màggal gi nga xam ne am na coow yu ndaw yu fi jugoon mm. yoo xam ne ñun sax dañoo wax ne yooyu duñ ko waaye moom da ko faje fajin wu am solo mm-hmm. ndax dafa def délégation bu mag a mag a ku ko seetlu ci gàmm gi délégation mu def mm-hmm. dem Kaolack mi pays Medina Baye mm-hmm. dem Tivaouane dem Ngourane dem Louga dem fu bare bare bare def délégation bu mag ànd ak waa Touba yi mhm. nga xam fu dem mhm. euh, maanaam image rek wax la dañuy wax ne image rek wax la ndax mhm. image bu gisee waa waa waa waa kër Cheikh Alaaji taxaw ko Cheikh Amadou ñu taxaw lool rek dèjà bu ñu xul mooy li si Abdou Aziz Al waxoon bi mu njëkkee taxawal dem ci moom di ko seeti daa wax ne yéen de waxuma la objectif yi ngeen yor waxuma li ngeen bëgg a préparé waaye seen jataay bi rek dàq na seeni noonu mm-hmm. loolu la ñu wax seen jataay bi dàq na ndax boo gisee gis ku sant Mbàkke gis ku sant Si ku sant Ñas mm-hmm. ngeen toog nee lii rek dàq na seeni noonu ah. ndax image day wax c'est donc Cheikh Amadou Bassirou loolu la def mm-hmm. dem Tiwaawoon kilifa yëpp mu seet leen ànd ak waa Tuubaa loolu ñu wane ko téléphone ko ci lépp loolu ngir yi nga xam dañ koy wax wax wax ndaw ndaw te dañuy wax ne fen ñeent jotu xeeb mhm. ndax des nga nga gis ko xam da nga naan ah, kii da waxam amul solo mhm. waaye mën naa yàq lu bare bare ba mhm. waaye wax wax ju ñaaw day war li koy yàq li koy dindi li ko mën a saaf mooy image image ak jëf rek donc soo xam ne si yëkkati dàngam wër tarixa yëpp image bu rafet nga xam ne ca bi ko nit ñi partagé ñu bari dañoo soulagé daan ne ah lii de moo mën a lii de moo yenu maana lii mooy li nekk nga xam ne kon ña doon yàq di ay naafeq wala ña xamut mhm. ñoo ñëpp keroog tëj seen gimiñ donc moo tax seen bés ñëwaat nag mhm. euh, journée culturelle taxal ko mhm. ni ma la wax seen Ablaye Thiaw lay Abdoulaye Thiaw Laye ñu ko ñu ngi ko rendre hommage mm-hmm. bërki démb li gën a yéemi mm-hmm. moo dem def émission comme ni ma defee émission ni mm-hmm. moo dem lam ah, moo dem Touba TV dafa dafa multidimensionnel <laughs> effectivement ah. keroog dem bërki démb bàjjen soxna Bali bi ñëw gis nga ko ma fa ah. daa ñëw bëkk suñu bas tertu tertu bàjjen soxna Bali ci guddi gi boo gisee ñi nga xam ne ñoo koy wane wane nañ ko donc kon loolu mu nekkaat beneen image boo xam ne day wan ne Sénégal mag yi mag démb dañoo àndoon ndax damay wax ne des fois boo déglee yenn ci waxtaankat yi ñi nga xam ne xëy na dañuy waxtaane ci wàllu fanatisme ma ci wàllu par parlo bokk mhm. waaw ak ñiy waxtaane ci wàllu ñàkk xam mhm. da ngay jàpp ne mag ñi démb dañ doon tànnante track loolu yes bi la nga jàpp mhm. waaye ndekkee yoote mag ñi démb dañoo ànd nekk benn nee naa leen Sénégal fu ñu seytaane mën a jaar bañ jaxasoo amul ndax loo boo xër-xërloo boo wax loo xam ne da nga ko wax ci tarixa jàmm te yoon sa waxi bopp la mm. waaye boo delloo mbindum suñu Tuubaa doo ko fekk mm-hmm. boo delloo mbindum Sidi Hadj Malick doo ko fekk Alaaji na Njaasaan doo ko ci fekk la nga fekk kay mooy mm. ah, Sidi Hadj Malick di kañ Sëriñ Tuubaa Sëriñ di kañ Sidi Hadj mm. ah, di kañ ay doomam loolu nga ci fekk moo tax kon alhamdulilah rabbi ma wax ne Sénégal jàmm rek waaye nag jàmm joo dañ koy dañ koy gunge mhm. jàmm joo gis dafa war a dañ ko war a taaw mhm. dañ ko war a suuqat mhm. bokk na ci nag li koy suuqat mooy journée culturelle bi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bassirou Mbacké def na ko te ñu war ko def insha allah a suba samedi le 19 naka la naka la programme bi euh, programme bi demee samedi ban heure lay tàmbali waaw kay boo gisee daanaka damay wax ne journée bi moom ñëpp dund nañu ndax plateau bi ñu def ñu tey rek ah. extraordinaire yeneen seen télévision yëpp mën naa wax ne deux semaines yi foo jàpp yaa ngi journée ki tey ah. nga xam ne a kooku daanaka mën naa jël cinq mille personnes cinq place ah. te lépp VIP la ko def ndax ndax di moo moom tedd nga walillahi al-izzatu wa rasul wal mu'minina yàlla nee li ñuy wax tedd nga li ñuy wax lu rafet li ñuy wax lu taaru mhm. ab jullit moo ko moom mhm. suñ sama bésu daa teel a lu mel noonu moo tax bi muy def journée culturelle 2004 damay wax ne boobu nit ñi miinuñu Euh, sa unité africaine bi bii ñuy def foire bi déedéet africaine bi nekk ci CICES ko tey nag mu dem ba tànt ba ñu fay tànt moom le président de la république tànt bu amee ay ganam hmm. moom la tànt King Fahd Palace moom la def lépp muy ay millions mu laaj semaine culturelle lañ ko defal semaine culturelle semaine moom lañ ko defal te pourtant fii des nga dégg ñu ne gàmm ñu bi daal ñu ngi def ko seeni sëriñ dañ leen di defal journée semaine culturelle mm. ñun nag journée lañ defagun moo tax may wax gars war nañoo àgg ba ci semaine ba <laughs> ba de wala mois culturel donc mu def ci mooy yaatoo yaatu yoo xam ne mm. xaaruju kenn mm. maa ngi fàttaliku première réunion bu njëkk de waa kër Sëñ Baara yi daje ñu ne léegi dañoo war def journée fekk moom mooy initiateur moo ko wàlla waaye boo xalaat dara faaw nga yaatal sa njaboot ñu dugg ci ah. bi ñu toog waxtaan maa ngi Ousmane Seck Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm waaw yaa ko xam yàlla a taalibi sax mu doon baax kër kër lañ ko doon defee bi ñu waxtaanee dañoo kon nañ jéem a cotiser sëñ Bass na leen man de bu sañoon du ngeen cotiser kenn du cotiser da bàyyi man ma gàddu lépp yoroo ko sa bopp boobu mbir yi melagul nii wala waaye nag ku nekk la yàlla yàlla la nitu yàlla ku ko liggéeyal suñu borom subhanahu wa taala moo lay fay mm. moo lay fay mm. waaye tey alhamdulilahi rabbil alamin mm. donc booba la bañoon ne kenn du ci def alalam booba léegi mooy yëkkati alal di ko jëf ba tey mu àgg cent millions moom ko taaliba ne jox addiye sax mu teral eh, ko jaanta waaw moom day waaw waaw mi ngi noonu te loolu gis nga pap yéen sens daa wax ne eh, du ngeen gëm yàlla mukk du ngeen tabi aji mukk lu ngeen mu ne kaay ma wax leen nu ngeen noo xam bu ngeen ko defee da soppante mu dee dee leen joxante teranga waaw kay dee leen teralante yonent sansa nee na heure bu ngeen ko defee soppante bëggante Cheikh Ahmad Basir na daa philosophie boobu la mu donde ko yonent donde ko Sëriñ Tuubaa mm. ndax Sëriñ Tuubaa moom euh, xus rek laa na jëlal am am téel téel waaye daawut xëti rek indi indi indi déedéet kon loolu la doon Sëriñ moo tax kon journée culturelle bi suñu Pape Cheikh mhm. amul carte ren lépp VIP la maa ngi koy wax fii ku ñëw insha allah teel ñëw da dugg mhm. même boo yéexee ñëw sax di kilifa bu soobee yàlla am nañ protocole bu mag muñ teg boo xam ne insha allah dana fexe noo duggee mhm. insha allah rabbi nag cérémonie officielle bi kon euh, mise en place 9 euh, lay du commencé huit heures waaw 9 matin lay commencé insha allah rabbi parents yi dañ ñëw te ren nag dañ ko tuddee maam Anta maam Cheikh Anta borom dërëm ak ngërëm borom mooy parrain ren ak sëñ Afe rakkam sëñ Afe mi nga xam ne moo nekkoon maam Cheikh Anta ñu bokk ndaay ak baay mhm. te maam Cheikh Anta rek nee la kàngal woo xam ne xajul ci xajul journée mhm. waaye Cheikh Ahmadou Bassirou comme noonu la ko toppee EAC bi moo tax mu tudde ko kon ñoom seen famille doon teel ñëw sëñ Afe ñëw mhm. bu ko defee ñi nga xam ne ñooy rendre hommage nag bari nañ macha allah ku mel ne xaritam sëñ Ablaye Dia sëni ak ak ak sëñ euh, sëñ euh, sëñ sëñ sëñ kii Sarr nga xam ne mooy waajuru sëñ Tayru Sarr mhm. ñoo xam ne ay nit ñooñu xam nga sëñ Abdoulaye Dia euh, maanaam image am rek doy na kan mooy bàyyam ndax li mu def ci alquranu karim kon kooku dañ ko yar dañ ko toqamtal ci alquranu karim <laughs> mu nekk nag genn wàllu Cheikh Ahmadou Bassirou muy xarit dam du soppeem mhm. Eh, di wëlëran di léppam waa juróom dañ ko ci rendre hommage ak Tahirou Sarr mi nga xam ne eh, eh, gis barki dem li mu def ci Touba Touba ci nam dam fa dam fa yëkkati ataal te pas obligé bu ko neexoon du def mm-hmm. waaye xam ne néegu yàlla fu ñu ko woote Sëñ Touba dañ ko war a jëfal moo tax mu jëf waa juróom bu dañ ko ci rendre hommage ak ñeneen ak ñoo xam ne xëy na mënuñoo toog fi waa daaru waa daaru <laughs> Abbas dañ ko ci rendre hommage mm-hmm. sëñ Abdourahmane Mbacké dañ ko dañ ko sëñ euh, sëñ sëñ Modou Makhtar Daaru Mot dañ koy rendre mhm. ak ñeneen ñeneen gisul affiche boo ko xoolee day day day day day Fàllu yi fi jóge barki démb ku mel ne sëñ Mamour bu sëñ Fàllu ak sëñ Xalil dañuy rendre hommage soxna say baara bu sëñ baara mu njabootu sëñ baara dañuy rendre hommage macha allah ñoom ñëpp ak ñeneen mbokki taalibe yoo xam ne ak ak Babacar Ngom xel kom baas waaw ah, gis nga ko ni nekkoon opérateur économique bu mag nekkoon jàmbaar ñoom ñëpp daal kon Pape Cheikh programme bi noonu lay dem incha allah ak loo ñu ci laajaat <laughs> a jàll ci euh, journal bi waaw 12 euh, mm. euh, rédaction bi la àndal mm-hmm. xanaa fàttaliwaat mbokk yi rek ni ñëpp teel ñëw effectivement samedi ndax 9 ci la di euh, tàmbali Euh, cérémonie officielle bi incha allah ñëpp teel a ñëw 9 heures ci ndam su cérémonie officielle bi euh, mu nekk ba ba ba ba ba 2 heures bu ñu jullee ah, ba 14 heures bu ñu nag mm. xéewal yaa xéewal yëpp nga fa ndax su bàjjen soxna baal la mu fa indi ñeneen indi ko fa ci taranga ah. dem boo ñëwoon foire ba daanaka dafay mel ni ak daral taranga yi fu la jóge ndax sax do ni nga wax léegi rek uh-huh. euh, dafa dafa dafa jëflante doomu aadama yi uh-huh. jëflante bu rafet loolu nag ku mën doon boo ko defee doomu aadama yi sopp la ko mën doon boo doomu aadama fayaat la ko ndax doomu ay ay la fa daje ci ay nag la mm. ko mm-hmm. pour ñu yóbbu leen mm-hmm. la mm-hmm. euh, ko duppee nekkoon kenn ci Cheikh Ahmadou Bassir waaye nekkoon kenn suñu waajur suñu xade waaw waaw nekkoon kenn ci réew ñëpp si am la si sëñ Pape kon ñu yàlla nañ ko di bare bare yow sëñ baa ngi may jottali ay cant ak i ngërëm ci yow kontaan naa eh, ni nga ko jàppee ak ni nga jàppee bàjjen ak ni nga nekk taalibe yàlla na yàlla gën a laa barke sëñ jërëjëf yaaram kontaan nañu lool eh, sëriñ sëriñ Maam Cheikh Awa Ba eh, doon waxtaanee journée culturelle bi nga xamee ni samedi bii la ñu koy amal à partir de 9h ca CICES mooy foire bu Dakar donc na ko ñëpp pare lii sang bi expliqué léegi euh, daf ko tënk rek waaye bu ngeen demee ba fekkee ko euh, di ngeen xam exactement lépp loo xamee ni rek euh, sunu sang bi di Serigne Bassirou Mbacké. di nuyu sëñ Jili Mbacké Abdou Aziz Bara di jàmbaar doomu sëñ Abdou Aziz Bara la macha allah bu ko suñu bas taxawee ba léegi ñoom ñaar ñoo ko àndi ko liggéey ñu ko nuyu baax ñun ñëpp su commission ci moom lañ nekk macha allah xanaa fàttaliwaat leen ni pare ci di ko waxtaane puisque suba itam dinañ ci ñëw ñëwaat gën ko yaatal euh, ak euh, borom xam-xam yi bu ko defee samedi ñun ñëpp ñu tase euh, fii ci CICES ci